asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu di leen ziar leen fàttali yéen a seen canal Galsen Tube la chaîne des youtubeurs vidéo ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof vidéo bi nag comme ni ngeen ko xamee vidéo courrier AdSense la voilà mais avant ñëw ci courrier AdSense bi nag euh, mu am tuuti ci yoo xam dinañ ci wax muy euh, Cheikh Tidiane mariage bu mu doon def ak euh, écran bi li ngeen gis muy génn ci écran bi muy film boo xam ne booy def moo ko def muy xar baax voilà avant ñëw ci ñaar yooyu nag dinañ wax tuuti ci li nga xam ne mooy actualité muy politique bi waaw di leen euh, gën a bàyyoo xel rek waa youtubeurs yi nga xam ne yëpp dañuy dem ci euh, di couvrir li nga xamante ni moom mooy euh, campagne wala caravane yi nga xam ne moom la moom la politiciens di def comme élection yi des fois dafay am tuuti ay violence ñuy sóoraale loolu bu ñuy dem waaw di sóoraale waa di jël seen i matuwaay ci côté yëpp nag voilà balaa ñuy dem di topp politiciens yi ci seen caravane yi di éviter tamit temps zone de tension yi tamit voilà parce que am ay contenu pour sa chaîne YouTube na waane tamit euh, jëlee fa ay blessure mu tere la nga mën a liggéey loolu tam amul njariñ voilà te ku nekk xam na ni euh, blessure yi am ci ci ci ci ci campagne yi wala ñi jiite euh, coalition yi wala tête de yi wala wala wala li ci blessé mais gàngoor gi ànd ak ñoom ñoo ñu ci parce que ñi ànd ak ñoom ñoom ñooy dof yi ñoom ñooy nekk di xeex voilà <laughs> ñoom ñi jiite liste yi moom ci wax la ñuy yem de ku nekk da nga yàq sama rôle mel ni xamee waaye fa la yem doo leen gis ñu def ñuy korpeñ kenn du si yor jaas kenn du si leen mais ñi leen topp nag malheureusement Euh, muy euh, population bi citoyens yi sénégalais yi ñoom des fois ñoom la politiciens yi di jaral ñuy tojante ay bopp voilà yaakaar naa loolu bokkul ci ak nite voilà koo xamante ni moom dafa bëgg ñu fal ko ñu fal ko googu yow mu jaral la nga tojante bopp kon bu faloo xëy na am na buuñaa boo ci xaar xanaa moo tax <laughs> voilà en tout cas daal ñu bàyyi ci xel xam ni politique la voilà niveau politique bi nag euh, moom malheureusement waroon na gën a kawe ni muy doxee Sénégal heure bu élection ñëwee nit ñi di woote jàmm di ñaan jàmm ndax ba léegi ñun dañoo nekk ci niveau primaire u démocratie voilà niveau primaire u ci dafay élection fa lañ nekk dañoo tànnee nag dëkk yu bari fii ci Afrique moo tax bu ñu koy ndamoo di glorifier waane nag boo ñu comparé ak dëkk yu bëri yoo xamante ni dañuy defay élection ci àdduna bi rawatina si dëkk tubaab bi da ngay gis ni euh, ñun ñoo ngi si si si ci béaba ci elementaire quoi ah, parce que élection am ñuy woote jàmm ak bu kenn xeex bu kenn nangam am na dëkk yoo xam ne passé nañ ko bu yàgg-yàgg-yàgg te ñoom ci dëkk yooyu la ñu war a inspiré mais malheureusement heure bu amee rek ay blesse am ci Sénégal mooy dëkk boo xamante ni su élection amul dëkk moom mën na nekk si jàmm amul problème ku nekk di lijjanti sa bopp di dox sa soxla moo xam donte waxi dof ji dana bari mais ku nekk yaa ngi sa bopp mais il suffit élection am rek tension moo tax année électorale nit ñi wuñ ko voilà Sénégal moom dañoo war a def élection par 10 ans quoi ndax ñu xaw fiir tuuti élection yi daf ñoo fàtt te lëjal ñu te bari te amul dara lu mu soob ci réew mi voilà kenn ku si nekk euh, soit euh, colonie la topp booy wax ay wax dof tamit seen yoon nekku ci dañ lay déglu yow lañ bëgg seen yoon li nga wax en na maanaa yenul ma da nga si député boo xam ni day digg ni day defar dara day construire benn affaire quoi député boo xam ne day créer ay emploi député ak créer ay emploi <laughs> wala député ak tabax ay école ak yooyu kan moo ko mës a gis ci monde bi voilà yow yow ba nga faluwul dara tabaxoo leer na da ngay nekk député di tabax boo nekkee député député vocation du vocation du loolu député kay soo ay vraiment doom na loo xam ni euh, président moo ko war a mën a diggee mais du ay wala ay ministre ak mais député quand même mais da ngay déglu discours yi nga naan ñi est-ce que xam nañ ni soit ñaaraam ñoom xamuñu lan mooy rôle député te bëgg nañoo nekk député wala jàpp nañ ni nit ñi xamuñu lan mooy député ñu jàpp nit ñi dañoo nelaw te xëy na sax loolu mooy cëpp Sénégal yu bëri affaire lu rôle député xamuñu ko voilà dañuy dem topp nit ñi di téel di téel rek mais député bi lan la mën lan la mënul xamuñu ko député bi daal sa waay loolu assemblée bee ñu fay nekk di voté ay loi muy tàcc wala mu naan contre na mënuñu ko ci Sénégal maanaam texte bi texte yi liñ leen ma yëpp ci ay prérogative amul lenn lu ñu leen di bàyyi ñu exercer exercer ko mu am njëriñ loolu propose ay loi voté ay loi wii noo tàccu ak tëdd fa di jeexu di gëmmantu di nelaw député Sénégal foofu lañ toll waa <laughs> loolu mooy seen niveau malheureusement voilà léegi nag moo tax kenn ku si ne nga bàyyi ci xel bu ci rey sa bopp bu ci def ay tooxi doona bu ci xuloo bu ci xeex bu ci werante su dee daal am na liste boo xam ne gis nga ni ñoom nga bëgg ñopp ñoppale ñoppale majorité assemblée selection yi jotee nga dem voté leen te ñi si des nga maalu ci ñoom bu leen saaga bu leen xas bu leen def leen jàmm na ñooy mais malheureusement du demee noonu loolu mooy nekk euh, problème bi quoi voilà. li nga xamante ni nag euh, bëggoon nañ ko si toppale mooy di féliciter euh, CGTHT muy Cheikh Tidiane waaw doon na def mariage temps yi fan si ginnaaw gisoon naa am publier ko partagé woon na ko sax si bi. Euh, mais malheureusement bi mu koy partagé dafa nekk nii lendemain moo nekk mariage bi si laa ko gis voilà te loolu dafa dafa jàmpoon mais nag quand ñu koy félicité di ko encouragé voilà xam naa waroon naa takk bu yàgg heure bi dañoo <laughs> waroon nekk deuxième femme lay takk man <laughs> foogoon naa takk na jabar bu yàgg dëgg di célibataire la woon <laughs> voilà mais quand même comme mujj na jéngu rek ñu encouragé ko wala di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko sëy bu barkeel voilà yàlla defal ko sëy boo xam day am njaboot ko barkeel tamit yàlla defal ko sëy bu neex sëy bu dëgër voilà yàlla musal ko ci seytaane Euh, yal na yàlla def loolu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen ñi may seetaan ñëpp da ngeen nekk ay célibataire tam yal na leen wàll voilà loolu yaakaar naa dina si baax te yàlla may leen lu ngeen def seen poos nag ndax fi mu nii moom boo nekkee marié te sa poos kiwut day xaw a metti voilà moo tax yal yàlla may ñëpp euh, koom-koom gu doy ba célibataire yi mën a wàññeeku baax ci dëkk bi ndax loolu dina baax célibataire yi góor yi bu ñu wàññeeku rek célibataire yu jigéen yi wàññeeku moo tax booy ñaan jaru ngay ñaanal góor ñu am jabar di ñaanal jigéen ñu am jëkkër non non jëlal benn groupe bi rek nga ñaanal leen seen ñaan moo bi voilà boo góor yal nañ am yàlla nañ am ay jabar ñoom ñëpp jarul ngeen naan góor jigéen yàlla nañ am jëkkër parce que góor ñi <laughs> jigéen lañ takk <laughs> voilà euh, beneen bi si topp mooy li ñu doon wax sànq léegi ci kii bi ci film bi voilà mu euh, li ñu doon wax mooy film bi ngeen di si ginnaaw muy film xar baax ki nga xamante ni moom moo ko defar muy euh, Boy Def waaw mi ngi ci communauté Galsen Tube bi mu nekk film boo xam ne vraiment son nañ ci trop euh, depuis deux ans mu nekk ci di ko di nekk di si xalaat yi scénario bi defar te yombul mu ngay defar film du yoroo budget boo defaree film mais volonté nga am ak say xarit ak say am di jàmm yoo xam ne wax nga leen ko ñu pare pour jàppale la pour jouer ko loolu vraiment il faut il faut être vraiment décisif ak tamit euh, vraiment motivé pour le fair voilà <laughs> loolu moom euh, volonté dëgg dëgg dëgg moo koy def waaw booy def réussir na loolu muy nekk film boo xam ne yi ngi demandé ñëpp képp seetaan vidéo maa ngi lay ñaan nga cliquer après ci lien bi ngay njëkk a jot suuf vidéo bi muy film xarbaax nga dem seetaan ko ba mu jeex pour jàppale ko voilà loolu am solo la di ko ñaanal tam yeneen film yi nga xamante ni mi ngi waaj ñëw buy joué tuuti parce que affaire moom fekk yaa ngi ci nekk dem ngay accumuler expérience di gën a defar muy gën a baax voilà mais daal ñu ngi koy encouragé vraiment def na benn long métrage boo xam ne vraiment bu am solo la euh, ñu ngi koy euh, ñu ngi koy encouragé bu baax a baax di remercier tamit xam naa à travers booy def tamit membre communauté Galsen Tube bi nga xam ne jàpp nañ ci voilà xamee nañ ci ku mel ni Idrissa Touré moom moo soloon jàllaa bi parce <laughs> gi génnul mais voix bi <laughs> voilà ak yeneen membre yi nga xam ne communauté bi jàppale nañ ko ci ci film voilà di ko encouragé vraiment wala am solo la voilà nit noonu la da ngay am ay projet boo amee ay projet ba pare nga taxaw temm pour réaliser sa ay projet voilà nit lépp loo concevoir sa bopp rek mu nekk lu baax rek nga taxaw ci temm pour réaliser ko yàlla dina la dimbali utal la ay voies et ba nga réaliser loolu voilà malheureusement nag bu fekkee da ngay taxaw naan daal difficile rek lii kenn mënu ko sa waay lii lii da yomb lii naa da nangam nangam ah léegi comme yow yaa dèjà nee nga yombul rek léegi après nan ngay bëggee mu yomb waaw mënatu la yomb parce que yombul voilà <laughs> foofu la wax ji ne léegi nag loolu si bàyyi xel baax da ci am solo léegi nag ñu ñëw ci courrier yi nga xamante ni moo waral vidéo bi euh, courrier bi ci njëkk euh, Mamadou Mbeng Fall Mamadou Mbeng Fall waa sa courrier ñëw na beneen bi si topp Adama Fall Adama Fall yow tam sa courrier ñëw na muy Fallen au carré Ibrahima Touré Ibrahima Touré Ibrahima Touré ceeb sa courrier AdSense ñëw na Omar Cissé Omar Cissé mooy mun nañ ko yokkal ceeb Omar Cissé ceeb sa Sucré si ñëw na beneen bi si topp Paul Émile Wagan Faye Paul Émile Wagan Faye moom mën nañ ko ci yokkal cere yaakaar naa sa <laughs> courrier ñëw na ak euh, Galas sa courrier ñëw na Fallou Galas Dieng Babacar Niang Babacar Niang yow tam sa courrier ñëw na ak euh, Papa Ablaye Niass Papa Ablaye Niass wala Papa Papa Ablaye Niassé sa courrier ñëw na euh, Fodigué Ndiaye xam naa daa mel ni Fodé Ndiaye wala Fodigué en tout cas Fodigué la bind Fodigué Ndiaye sa courrier AdSense ñëw na Ibrahima Coy Ibrahima Coy yow tam sa courrier AdSense ñëw na ak euh, Serigne Fallou Diop Serigne Fallou Diop yow tam sa courrier AdSense ñëw na ak tamit euh, Birahim Mbay Birahim Mbay Birahim Mbay moom mënoon na yokk ceeb rek waa mbayeen la sa courrier AdSense ñëw na Xaadimi Yàdd Xaadimi Yàdd yow tam sa courrier AdSense ñëw na ak euh, Ousmane Balde Ousmane Balde tam sa Kouri Assane si ñëw la bu si mujj muy euh, Mouhamadou Bamba Faye Mouhamadou Bamba Faye cere sa Kouri Assane <laughs> si ñëw na ah, moo xam ne séeréer moom dañu bëgg cere moo tax mun nañ leen cee yokkal cere duñ duñ ci mer voilà loolu mooy nekkoon courrier AdSense yi nga xamante ni ñëw na fi après seeni borom ku ci seetaan vidéo bi te te te contacté gu ma la tamit mun nga ma def signe voilà incha allah bu ko defee nga mën a jot sa kii mën a validé voilà courrier na comme ni ñu ko waxee woon léegi am ñu seetaan vidéo yi te duñ comprendre parce que day fekk ni dañoo ñëw rek tombe ci vidéo yi voilà léegi te see dama ko dama koy yàgg di wax seen YouTube boo duggee gis dara loo xam ni comprendre loo ko da ngay topp vidéo yi yàgg yi mooy tax nga comprendre voilà suufu vidéo bi ginnaaw vidéo film xar baax bi ci suufu lien boobu lien film xar baax la ñuy njëkk a teg ci kaw commentaire ci kii ci description bi di dinañ teg après yeneen liens yi nga xamante ni pour création chaîne ba di nga koy monétiser ci ordinateur ak ci téléphone dinañ ko teg ak yeneen euh, playlist yi nga xam ne ay YouTube studio la ak AdSense et cetera yooyu nga xam ni maam koo xam ni da nga nekk youtubeur te seetaan a góoleenu bañ jeex da leen war a seetaan ba mu jeex pour nga comprendre lien yooyu dinaa ko def ci suufu vidéo boobu voilà di la demande tamit chaîne bi su fekkee yaa ngi seetaan vidéo bi te abonné ko woon chaîne bi bul fàtte da war a abonné tamit chaîne YouTube da ngay noonu mooy la nga koy soutenir boo munti seetaan ci YouTube rek nga bi am na solo pour nga remercier ki ko doon def minimum mooy nga abonné ci chaîne wala nga aimé vidéo ba voilà loolu tam ñu koy <laughs> ñu koy bàyyi xel c'est très important kon ñu leen jox rendez-vous ba vidéo bii di ñëw incha allah rabbi jërë ngeen jëf